damay wax ni nañu fexe rek ba relation yi ñuy am yëpp nañ ko teg ci relation nit ak moroomam avant association di am nañ ko teg ci diggante papa ak doom mag ak rak buñ ko defee noonu rek day daal di am njëriñ bu am solo ci élevage di nuyu suñu papa Tidiane Ngom ndax moom tamit kilifa la ci Thiès ba pare dafa def lu rëy ci élevage di nuyu ñëpp ndax ku lim juum waaye ñooñu ma lim nii mënuma leenoon ñàkk lim ndax boo ñëwee ci dëkk quand dafa am bunt surtout liñ fiy dox muy élevage alors li ñu fi indi tey nag euh, man sama xol dafa sedd ndax ay ndaw bu ñuy dox di mbébét dara fekk ci seen i papa yi nga xam ni ay référence lañu dañ leen di jox courage man de li ma gis tey Thiès gën na maa jox courage ndax keroog sama discours au CICES e nee naa du ma tay du ma bàyyi duma ma découragé tant que yóbbuwuma danaa des ak ñi ma àndal ba fañ ko bëgg a yóbbu mooy mu suqali élevage mais loolu suñ ko bëggee def dañuy dox ci ay principe yu wóor yu leer yaa nga xam ni dañ ci d'accord principe yooyu am na ku ko fi rappelé léegi mooy ouverture ndax élevage mënut a yem dakaar rek d'ailleurs li ñuy wax laadum yi ñuy yëngatu sax amaane bu dul woon ak suñu papa yi ñun duñu xam laadum waa comme Thiès la jóge woon nag ñun ñi ngi Dakar tey di ci liggéey ñu sanc lu mel nii nañu fexe ba yaatal ko ba mu dem ba Kédougou ak lépp ndax élevage il faut que ñu xam ni tant que généraliser wuñ ko fépp bu fay dox pour mu am impact bi ñu bëgg ci produit intérieur brut Sénégal du ñu ko am te quand même la waxante dëgg développement réew yu mel ni Sénégal càmm ko yor mbay napp yeneen secteurs yi soog si dugg donc nañu fexe ba li yàlla ni ñu yàlla boole muy élevage nañu fexe ba dugal ci suñuy loxo ñëpp boole ci am ci gis-gis bu rafet xol bu laa bi pour que élevage mun a jëm kanam loolu dong moo tax a jóg Renades looloo tax ba ñu toogee Dakar ne léegi nag assemblée générale bi jeex na léegi nag nañu jublu ci liggéey ndax assemblée générale bi benn étape la woon rek ñu ne comme yàlla dafa def ba ñuy dem ci assemblée générale bi dafa am lu ñu ci dat te gor ca wax ja waxoon nañ ni bu dee cent francs la ñu am cent francs yooyu dinañ ko bokk ak éleveurs yi ndax bu ñu bëggee élevage jëm kanam bu ñu bëggee suñu association yi ñu gëm leen dooleel leen gën leen a dëgëral nañuy def lu ñu dab ci élevage bi ñu delloo ko éleveurs yi loolu mooy tax yëf yi mën a gën a jëm kanam moo tax suñu deux sponsors leader parce que am na ko wax sànq bañ dul dara sédiment njëkk jóg ñëw ne ñii am naa yaakaar ci ñoom daal di ciy def dooleel def ci xam-xamam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu dem ba ci biir Grand Moulin dugg si ni ñun tamit kenn duñu bàyyi parce que ginnaaw ndax lii ñu gis li ngeen ñu wax en terme de vision vraiment loolu moom doy nañu donc ñun dañu ñëw ànd ak Sedima tamit dox ci liggéey boobu. ni la des def tey dafa war a yee éleveurs yi ndax Sedima dafa yor usine am di liggéey Grand Moulin. Grand Moulin dafa yor usine am di liggéey ku ci ne di xaar chaque jour nga jot sa wërsëg daal di jéem a xool nooy avancé loo sa li ngay liggéey mais ñun Renades fexe nañu ba tey Grand Moulin ak Sedima mel ni ay seex ñu àndandoo di jàppale Renades loolu c'est très symbolique loolu war naa wane ni ndekam ñooñu ñoo mën a ànd di jàppale des mais éleveur yi lu leen tere tey ñu bokk ndey bokk bàyyi daal di lépp ngir intérêt élevage ndax ñun li ñu tax a jóg mooy élevage dama koy rappeler circonstance bii ñu fi indi tey c'est parce que opération tabaski xar yi dañu bokk ci élevage mais élevage et dama koy wax sous le contrôle de docteur Diallo di sama mag di ko am expérience ci élevage élevage diversité la la diversité filière si on renforce renforcer filière ba intra filière les relations intra-filières, parce que y avons deux types de relations ci biir filière bi les relations interfilières filières c'est tax bu ñu demee bay wax impact élevage dans le développement économique bu ñu sukkandikoo ci développement filière yoy nous tax ñu position bu am solo développement socio-économique Sénégal de sorte que ñun éleveurs yépp la wax même ñi yar janax yi wéx sañu ci Renades di ni ñun parce que objectif yi nga xam ni moom la état bi fixé boobu dama koy rappeler il faut pas ñuy fàtte ni suñu association yi état moo leen tënk dafa am yoon wu mu tëral pour ñu mun ci sukkandiku boo demee ci forme juridique bi am na loi bu leen di organiser aujourd'hui c'est la loi de 68 boo demee ci ni ñu war a doxalee pour am ay ko yokkale yokk koom-koom bi dugal seen loxo ci koom-koom bi dafa am ay politique ay stratégie yu état tëral ci la association éleveurs yi war a wekku pour mën a liggéey indi seen contribution ci développement élevage moo tax loolu ñu ciy sant état bi parce que dañ ñu xalal yoon wi ñun ñu ñëw nekk seen gannaaw à travers le ministère de l'élevage pour ñoom buñ ñu doon def fukk ñun buñ ci dugalee suñu loxo xëy na ñu def fukk ak juróom keneen bu ci dugalee loxoom ñu def ñaar fukk ba yegg objectif yi ñu fixé wu. moo tax dafa am solo nañu jàpp ni Renades projet bi mu am c'est un projet qui essaie de fédérer. toutes les bonnes actions ci cible l'élevage parce que dañu toll foofu tey dañu nekk ci 21e siècle dispersion baaxul bu ñu dispersion il faut ñu comprendre lan la ñu wax dispersion dispersion du ku nekk def sa groupe déedéet dispersion ci d'abord filière yi nga xam ni moom la ñoom la ñu war a soqali ñoom la ñu war a réorganiser dooleel leen parce que exemple yi ñuy roy ñun aujourd'hui man dem naa Brésil bu ma dem nag sama lig sama métier parce que man sama métier doy la élevage yóbbu ma fa danaa fexe ba balaa fay nous xol mbirum élevage ñu fa li tax spécialisation en France bobu ñu def tay parce que dañu développer ces filière à tous les niveaux ba ñu yegg fa xamni di leen ëmbé nonu mais ñun Sénégal même filière ovine il faut ñu il y a énormément de choses à faire parce que dañuy joxe un exemple moy projet ba nga xam ni Renades tamit amna ci ay suggestion yu noble yu nga xamni moy tax projet bi meuna gëna gën a jëm kanam dañ ni amélioration de nos races au niveau de la filière ovine mais dañu bëgg jël suñu géniteurs comme yi nekk fi ni rek duggal leen ci àll bi croiser leen lolu doyul lolu doyul parce que gépp expérimenté nañ ko mais nañu def évaluation parce que da ngay boole ay levier yu bëri ci programme boobu mu mën a tax loolu mën a nekk ndax tey ñi ngi wax dañoo war a jël suñu géniteur laadu yi dugal leen ci suñu race mais ana suñuy femelle ah dañoo am problème mu femelle il faut ñu renforcer suñu femelle yi il faut ñu dere ñuy rey femelle yi li ñuy abaat ci femelle dafa bëri lolu aussi dañ ci wara jouer il faut ñu xol comment faire pour que vraiment tous ces programmes là c'est de bonnes idées ñu mën ko développer moo tax danaa des problèmes yi nous avons aujourd'hui les problèmes cruciaux dañ ciy citer quelques-uns rek ak ñun ban d'abord dañuy commencer autosuffisance en moutons. je dirais même autosuffisance en viande mais Rennes, 320 000 moutons la alors que a a daan nga 400 000 500 000 moutons muy wàññeeku di wàññeeku ba ren ñu ak outil lu dul 320000 mais Renades dafa wax ni il est temps ñu taxaw na parce que milliards yooyu ñuy jël di ko yóbbu bitim réew di indi ay xar mais lu tax mun da dem ci éleveurs yi et tey fii ñu taxaw tey c'est très symbolique ndax waa bu buñ toogee ba xam ni dañoo war a dugal seen loxo ci autosuffisance en mouton de tabaski mooy wane ni ñoom bokk nañu gis-gis ak des bokk nañu xalaat ak des te li Renades mébét ñoom ñi ngi ci biir ndax docteur Diallo ñun li ñu gëm mooy bu déwénee en la tabaski 2018 état bi buy jéggaani nañu fexe ba wàññil ko gabu mu moutons mun na nekk ñun ñëpp nañ ci dugal suñu loxo. wax nañ ko waa Tëngéej wax nañ ko waa banlieue bi Pikine wax nañ ko waa Guédiawaye tey ci ngoon ña nga jëm Kër Massar dinañ leen ko rappeler suba ña nga biir Dakar parce que dañoo bëgg docteur c'est important. ci 750 000 moutons yi soxla Dakar 350 000 ci mais 350 000 moutons. Vous nous direz, une association Dakar, 100 membres. Nous sommes qui est Tabaski 2018, dans l'un encadrés. Vous nous avons il y a 100 moutons de qualité et à des prix abordables. Et ça, comme il y a 10 000 moutons. 100 personnes qui ont nom, 10 000 moutons. Mais vous, il y a une association de Dakar. Vous avez pas doué les seuls Mais Dakar, pour les mêmes règles, Mais quand même, vous Dakar, Dakar mu ne régler problème am xanaa treize régions yi nekk Sénégal ak li muy yaatu yaatu yàlla def at yi mujj yi ñu am ay performance agricole yu am solo mu war a am impact ci élevage waay waay li laay war a suul mille mu dooy des xanaa war nañ ko mën a génne ci 13 régions yi des Sénégal looloo tax nag Renades ni ñun dañuy wax ak ñëpp waa Kédougou dañ ciy dugal seen loxo waa Kolda dañ ciy dugal seen loxo waa Sédhiou parce que yooyu yëpp am nañ fa ay antenne xam nga loolu ku koy wax war nga xam ni élevage rek moko ñor du par parlo du and ak ma demba du and ak ma paté ndax man nit rek la mais structure bi day demeurer te dafa am benn président bo xam ñun ñëpp dañ ko nawon muy wax ni afrique li ñu soxla du ay nit yu am doole nit yu ñëpp di topp déedéet nañu am ay structure yu am doole te man loolu laay liggéey des bëgg naa bu yàlla defee ba fa mu yemale sama mandat ma war a dem bàyyi fi structure ba nga xam ni tey kenn du ne cam kenn du ne cam dañ naan kii lim fi bàyyi vraiment boo jëloon n'importe qui teg ko mu continuer liggéey bi ndax dafa jot nag gi jotee ñu am suñuy xar en nombre suffisant terewul nag comme yàlla def na ñun ñëpp loolu la ñu xamee ku jóge bitim réew indi say xar baax na mais sénégalais dañuy am l'embarras du choix xaru Sénégal tabarakalla macha allah yeneen xar yaa ngi fi ku bëgg nga lu neex nga jënd et su ce qui va être intéressant ça va jouer sur le prix parce que plus l'offre est importante plus la demande peut réguler le prix de l'offre donc c'est extrêmement important Mais wax ni beneen mbir que dans un bref délai dinañ ko démarrer Ce n'est pas gratuit nous sommes le directeur commercial de sédiments. Nous avons les bombes qui nous nous. Nous ngi ànd ak ñun dañu Grand Moulin ñun en attendant suñu stratégie yëpp ñu koy tëral pour ñu wàññi aliment bi dañu am lu ñu bëggoon ñu ne ñu lan ngeen bëgg ñu ne dañoo bëgg démarrer ay magasin de référence Renades pour jaay aliment ci l'ensemble du territoire national ñu ne nan ngeen ko xalaate ñu ne lool li ñu bëgg mooy comme ñu éleveurs yi ñooy jënd aliment bi bu ñu defee loolu ngeen wàcceel ñu ko bu baax defal ñu tarif préférentiel pour le

prospection avec équipe pour que vous n'ayez dañuy commencer indi aliment vous bu sédiment ak bu grand moulin pour magasin de référence Renades que pas dans xaar dañuy daal di ndax Vous yi aliment vraiment wax